en 2012 président Wade convoqué un conseil des ministres spécial ni ñu li ma leen di doyee mooy préparez bu ngeen accompagner le gouvernement Macky Sall est votre frère il ne faut pas l'attaquer faciliter leen yëf yi bu leen leen nëbb dara muy benn ñaareel ba gis nga bërki démb ou démb ñuy wane ci presse bi le président Macky Sall ak la délégation du gouvernement sénégalais au FMI am na interprétation mais li ñu ci jàpp mooy Macky Sall mel na ni ku leen di dimbali di leen teg ci yoon ñi nga xam ne aussi jàpp nañ ne loolu mooy yoon wi Macky Sall xàll ci la ñu war a jaar je pense que war ñu bañ aussi ci lépp lu ñu mën ñu jàppale leen teg leen ci yoon. mais est-ce que ñoom euh, ñu wuñu d'un cadeau empoisonné Sénégal depuis Covid bi euh, dañuy mëne un train de vie bu conformul à nos à nos ressources et moyens. euh, y a de subventions euh, presque plus de cent milliards euh, de de de subventions. Mhm. Euh, yu ñuy def ci denrées yi yu ñuy def ci électricité yi ba daaw bi FMI euh, tapé du du du du du tapé sur la table euh, gouvernement bi ba mu wàññee subvention bi gis nga ni ñu yëg ni ñu ko yëgee ci facture électricité bi. te affaire bi pareegul parce que dañoo ne FMI dafa ne d'ici à deux mille vingt cinq nañu réduire le le le déficit à 3 pour cent déficit mu ngi nekk ci 5 virgule pour cent. Mhm. Euh, politique boobu dafa war a continuer 2024 euh, aussi dañu war a retirer waat 100 ou 200 euh, milliards. milliards oui. euh, bi dina gën a dina dina gën a dina gën a cher. absolument euh, ensuite ñoom ñu ñëw fekk un niveau de dette boo xam ne euh, voilà c'est c'est c'est très lourd presque plus de 76 pour cent. Euh, quinze mille milliards de dettes yoo xam ne fekk nañ ko ça que seen marge de manœuvre wàññeeku na ñu ñëw teg si nag seen discours souverainiste bi seen i prise de position FMI mu ngi leen di napp balaa muy euh, tijji kees yi di leen accompagner euh, dinañ leen soumettre à une à une rude épreuve et d'ailleurs parmi Euh, seen discussion yi fële euh, au à Washington mhm. euh, les bailleurs dañ bëgg a comprendre fan la ñu jëm lan mooy seen position et les bailleurs aujourd'hui semblent être prêts à toog taxaw seetaan seetaan leen waaw xam nga may na da nga ne cadeau empoisonné xam nga lu luñ lay jox la luñ lay may la mais lii du cadeau ñoom ñoo ko laaj ñoom ñoo ni mën nañu ñoom ñoo ni xam nañu ñoom ñoo ni am nañu olof yi dañu léet ni ku mburu xam ku tëdd fa mburu tëddoon xam ne mburu jàmbaar la yi difficulté yi ñu am nii mën na am ni bu doon ni président Macky Sall boo continuer ak son mun na bañ demee noonu parce que questionnement yi nga wax nii ni les partenaires au développement du Sénégal dañ koy wu ñii fan la ñu jëm ak ñun mais duñ ko woon posé wu ak le bi nga xam ne moo fi moo fi moo fi jóge tey ndax am na fu ñu jaar am na lu ñu jot xamante am na loo nga xam jëflante nañ ko depuis des années mais su fekkee ni ñoom dañu ñëw tenir un discours populiste par exemple bu ñuy wax rupture mais man dama jàppoon ni ku ñëw ni da ngay indi rupture doo jóg jubali ci FMI ak Banque mondiale. ils n'ont pas le choix. ah donc ana rupture. parce que 324 milliards yi ñuy wax ne ñoom euh, bon y a eu de la manipulation en disant que euh, mobiliser nañ 324 milliards 324 milliards boobu financement la bu ñu am depuis décembre. ñu oui. bloqué ko. à cause de la tension. bien sûr daf ko xaaj ko daf ko en deux parties bloqué ko a cause de la de la de la tension euh, politique mm -hmm. euh, ils n'ont pas le choix mais non attends may mun a lu nit gàtt-gàtt xel xam nga ni ñoom bi ñu toogee ak léegi li jënti xaalis xaju fi donc lu ñu fi am la ñu fekkoon la pour confirmer un peu ce que tu dis benn rupture daal la ñu def hmm. ma jàkkoon ci hmm. ñaari góor ñeenti jonk ma dama ah ça je content <laughs> sama sët yooyu daal loolu moom jigéen ñi dañuy kontaan jigéen ñi dañuy kontaan ça c'est une rupture boo xam ne vraiment j'applaudis loolu boobu d'accord naa ci mais bu dul loolu en vérité li nga xam ne man su ma leen doon wax li ma leen mën a conseiller et dama leen di parce que jeu le dis directement et en direct à part de ton plateau j'ai écrit au premier ministre Ousmane pour jox ko samay xalaat sur certaines question te bis bu ñu wootee ndaje boo am na opportunité wax ko je le fais. mais lan nga ko lan nga ko bëgg a wax. lu ma jàpp ni moo mën a doxal réew mi am na ci loo nga xam mën naa ko wax mooy par exemple quand le président de la république a dit que day woote ay assi en fait ay assi ay concertation avec les partis politiques pour assainir la vie politique loolu joxe naa ci sama xalaat loolu après mën nañ ci mën assise de la justice bon de la justice euh, man amuma ci amuma ci gis-gis li tax amuma ci gis-gis mooy dama jàpp ne justice sénégalaise bi bu aw yoon nous avons des magistrats qui sont compétents di def seen liggéey ni mu waree li fi nekkee mooy ku tribunal jox dëgg nga ne tribunal baax na juge baax na ku ñu xañ dëgg nga ni les juges sont mais ñoom tàmm nañ loolu donc loolu du leen déranger maintenant su fekkee ni jàpp nañ ni y a des changements ñu war a indi au niveau de la justice mais y a pas problème par exemple man jàpp naa ni les mandats de dafa gaaw te bari mhm. juste pour joxe un exemple. ça c'est injustifié. oui mais xëy na mën nañ ko justifier mais. dañ koo tàmm tàmm ba nga xam ni pour ñoom du dara donc yooyu yëpp c'est des questions war nañ ci mën a trouver ay ay ay solutions.